asalaamaaleykum mbokki xarit yi nuyu nañu leen kenn ku ci nekk ci sa tur ak sa sant fii ci seen chaîne Kéwoulo TV yéen a ngi ci seen émission laaju bés bi tey nag laaju bés bi dañu doon wax ci li nga xamante ne nii moo di seen Petit Gallé gis nañu ni critique yi bari na nee nañu Sen Petit day tax xale yi du ñu jàng lan lañ leen di jàngal fecc lañ leen di jàngal ak way tay nak ñu doon laaj sa xalaat ci li nga xamante ni moo di seen petit gàll. day tax sen parents yi di di inquiéter donc je vois pas man l'intérêt bu tax gars yi nekk fi japp di wax ne que euh, dafay yàq yak xalé d'accord légui jaar aussi nee ñu ni muy solo ni muy solo baaxul té lool lepp sen petit gàll moo moko moo ko bon côté fini y a pas blâmer tout ça bu nekkee parents mais accepté nañ ko ci man y a pas lo xam jaxna jarna tay ji ñu nek fi japp di wax même si bu nekkee suñ société ñun sénégalaise Bougouko, mais ses parents, eux, ils sont d'accord avec. Donc, on n'a pas à dire, on n'a pas notre mot. Tay nak euh, suñu question moy dañ leen doon laaj euh, comme tay ji Sen Petit Gallé gis nañu ni mi ngi am ay problème nit ñi ñu ngi koy ñi ngi commencé di leen clash nee nañu ni ñuy solo baaxul ba paré dañuy yàq li nga xamné modi xalé yi. waaw loolu luma sa ma si xalaat moom mooy lu ñepp wax rek loolooy deug Sen Petit galé, mom de un baaxul xalé amun éducation de deux sen solin baaxul sen dara baaxul. ndax manam vi bu ni jema incarner xalé vi bobu la xalé amut vi de luxe bi wala di len jema defay sr to lolou te wut xalé mom moom li nga ñëk wara def ci mom moy tagatal ko mu doon nongo nga jangal ko alcorane ndax kenn ku ne na la laaj ëlëk no yore won njabot gi ak no samé won njabot gi kenn ku ne sam nga lolou luy ci ñëk point bu ci ñëk moy sen parents yi am len ce part de responsabilité waaw ndax li ñu nekké ni musique ay tiaxan la du deug waaw alxuraan mooy dëgg doona war a dem jaamu ji yàlla bàyyi caaxaan yi waaw seen Petit Galle moom waxuma la sax yàqat xale yi mais population si su boppam lay yàq mag ñeeg ndaw ñeeg ñëpp waaw ñëpp la yàq amul lu si baax man gisuma ko si lu ñu wax ay dañ leen doon début bi dañ leen doon jàngal alxuraan nag yooyu yëpp loolu ay mbubboo la rek alxuraan àndut ak ay caaxaan àndut ak ay foo ak ay tëgg tëgg moom kenn bëggu ko amul benn ku ko bëgg amul man gisuma ko gisuma kenn koo bëgg baaxul tey baaxul guddi da ngay gis sax say doom wala say njaboot dem offre boo xam ne petit gàlle bu commencé kër gi dootul amati jàmm dootul amati dara loolu yëpp ñoom ñoo ko jéem a incarné def intoxication familiale ci euh, kër jàmbur yi waaw yàq njabootu nit ñi yàqu xale yi yàq ñëpp xale yi lu ñu waroon def mooy tënku si daara di jàng alxuraan kon concours lan moo tax ñu def concours alxuraan wala ñu def ay concours jàng xasaayit wala concours jàng bind maam alaaji maali gi wala ke yeneen kër diina yu fi nek yëpp mais ñom pourquoi ñom ñu choisir musique ah si musique bo xam tam mom bir mom nenañ mom moom ku ko ku ko sos ba ba ba ba mu nekk fii ban ñu koy def ba ñepp tax ci lenn lu mu def lu am bakkar loolu dalay top ba yomal xam même bo duggé sa bammel sax dalay top waaw lool mom suñu borom moko wax mom ku fi def lu bax nak, bo fi joggé lool dina top sa bir bammel rek muy doon ay xéwal ku fi def safaan nak, lool dalay top ba sa bir bammel lool mom ñepp xam nañ ko waaw kon nit ñi moom lu ñu war a def mooy jàngal xale yi def leen éducation de base xale concentré seen cahier yi waaw mais en général ñu ngi siy gis ñëpp du doomu ay borom alal ay doomu baadoolo rek nga siy gis doomu baadoolo ñu jël la jënd la ay yëre jënd la ay dàll ba pare après ñoom am si revenu boo xam ne ñoom yow doo ko si am bul sax sonn publicité yi ñuy def ñaar publicité lañ yor kenn mënu ko compter kenn mënu ta xam ñaar publicité la ñoo si nekk loolu bu ñu jëlee ko dàll jox loo xam miserable yow nga siy bugg a concentré lool loolu loolu du aduna na nit ñi bàyyi caaxaan dem jaamu yalla xamne jaamu yalla mom moy deug mbokk yi gis nga li lañ leen doon won ñi gis nañu ni li lu bax la yàqul dara ñi gis ni tamit dafa yàq xalé yi kenn ku ci nekk ak li nga xamantene ni mom nga wax legi nak li lañ leen fi indi ñoo ñong leen di jox dig dajje ba benen yoon jere ngeen jëf.